bienvenue dal leen ak jàmm ci seen émission Miroir Echo Miroir Echo mooy émission bu bees bi leen TFM jagleel ñu ci waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum koom chaque quinzaine dinañ tànn sujet bu leen soxal waxtaan ak experts yi dem seeti ñi nga xamante ni ñoom lañu dénk secteur boobu ñu wax ñu déjà lan lañ ci jot a def waaye itam partager ak ñun projet yi buñ ci jógee dinañ dalal fii ci plateau bi entrepreneur boo xamante ni dafay yëngatu ci suñu secteur du jour mu partager ak ñun son parcours suñu numéro bu njëkk nag ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni mooy secteur informel xam ngeen ni secteur informel dafa représenté pàcc bu am solo ci économie Sénégal ndaxte ñu ci bëri ci la ñuy yëngatu waaye nag balaa ñuy xuus ci waxtaan bi nañ dem xool lan mooy secteur informel. li ñuy firee secteur informel ci Sénégal dafa lalu ci ñu respecter mboolem procédure di jëm ci mbirum yoon waaye ci mbirum fiscalité am agence nationale de la statistique et de la démographie di ANSD moom di jëfandikoo ci lu jëm ci recensement général entreprise yi ab comptabilité goo xam ni dafay tegu ci système comptable ouest africain bi di SYSCOA mbala beneen système comptabilité harmonisé secteur informel na nga xam ni moom la ñu ko tëralee mu doon kon ay unité de production yoo xam ni dañuy yëngu ci biir Sénégal jëm ci mbirum comme te amuñu contabilité goo xam ne nii day respecté norme ya nga xam ne ni moom la système comptable ouest africain di SYSCOA tëral ni ñu koy euh, firee nag wute na kon ak unité de production ya nga xam ni dañu yëngu ci mbirum mbay moo xam ci jur gi ci àll bi waaye ci mbirum napp lii nag bu ñu ko euh, xayma ci téeméer goo jël juróom fukk ak ñaari kon nemmeeku nañ ni doon ay entreprise informelle BIT di bureau international du travail moom am yeneen tëralin yoo xam ni kaa def jëm ci ay critères yoo xam ni dafa tegu ci comptabilité formelle mbala activité ba ñu enregistré ko bu ñu sukkandikoo ci lii nag kon unité économique nga xam ne ni dafa informel ci téeméer goo jël juróom-ñett fukki yi ak juróom lañ ciy nemmeeku. agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises di ADPME moom mu am nu mu firé secteur informel. mu lalu rek ci da nga xam ne ni noonu la ñu ko tëralee ci système de comptabilité nationale des Nations Unies mu doon ab groupe unité économique goo xam ne nii jëm na ci produit ay biens ak services waaye mu doon yoo xam ne ni kenn enregistré wu leen ci forme ya nga xam ni kat moom la yoon tëral waaye doon ay entreprise yoo xam ne ni du personne morale wute kon ak lii di xam mooy ménage yi waaye doon ay entreprise yoo xam ne ni amuñu ab système compte goo xam ne ni bu doy la secteur d'activité yooyee ñu ne nemmeeku ci ay commerçants ferrailleurs mécaniciens plombiers maçons chauffeurs ñu yëngu ci taxi ay artisans mbala ay couturiers ba euh, seen liggéeyu kaay fañ koy amale moo xam seen biir kër mu doon ay liggéeykat yoo xam ni ay ambulants mbala ñu am boutique mbala sax ab atelier seen am-am it ñu gis ne am na nu muy wutee moo xam ci diir ga mbala ci jamono ja waaye mun nañ nemeeku ni secteur informel yamu rek ci kon dayo entreprise bi mbala chiffre d'affaires ga nga xam ne ni moom lay am moo xam mu néew ca la mu war a àgg secteur informel am na geneen groupe goo xam ne nii bëri na ay tëralin te jaxasoo lool moo xam travailleurs yi nga xam ni dañoo am seen compte bopp te amuñu ñu leen di xëyal ñoom ñuy gérer kon seeni entreprise ci secteur informel bi ak liggéeykat yi nga xam ne ni dañuy faral di am xëy ci secteur informel bi. kon ngir ñu xam ne ab entreprise dafa formel war naa am déclaration d'existence RC ak NINEA am unité économique localisée maanaam bërëb ba mu nekk ñu xam ko bu baax waaye lu jëm ci état financier ñu déclaré ko. lu jëmit ca la ñu war a respecté la teg ci sart jëm ci prévion sociale respecté it disposition ya nga xam ni inspection du travail dakateg ba tey it wàccoo ak lépp loo xam ni jëm na ci déclaration fiscale. Samba laa tudd commerçant def ko ay yére laay jaay ay dàll business. man la Ndeye Binta Diagne PDG de Kër Yaay Khady. maa ngi yëngu ci wàllu jënd ak jaay. waaw man moom maay jaayal sama bopp mais yor naa ay papier am naa ay këyit ma defar bopp ba léegi maa ngi si këyit yi am na yu pare. 2012 laa créé sama société euh, wut sama NINEA registre de commerce import export daal di ubbi sama société euh, mais j'avoue que c'était pas facile aussi. pour nga lijjanti papier yi tamit da ngay sonn da ngay yéeg di wàcc ba keroog ngay am. lu tax muy xaw a euh, metti tuuti parce que da ngay jóg pour dem fenn pour déposer mais dangay dem soit doo fa fekk ka ngay fi ngay déposer wala soit ñu ne la nga fekk fa courtier boo xam ne peut-être daf lay bëgg a sa xaalis pour mën lu ko defal mu gaaw parce que bu dee da nga ko déposer normal temps bi ñu lay def ak bu fekkee danga nga ko boo da jaar ci nit boo jaaree ci nit mooy gën a yomb gaaw xam nga loolu ay jafe-jafe la parce que normalement nit ki war nga mën a jóg rek dem déposer sa kayit normal sans jaar ci kenn. moom daal bu ñu jàppale woon si ay problème papier yi mu gën a gaaw moo gën. on est obligé ñu matale lépp parce que bu ñu ko matalewul si suñu wàllu tukki dem ak dikk du yomb parce que pour nga tukki dem ak dikk kayit yooyu ngay ngay ngay mën a déposer pour mën mën mën ko mën ko am mais eh, du lu yomb parce que di nga sonn di nga di nga dem di nga dikk da ngay wut ni ne yaa après nga wut registre de commerce après nga wut carte commerçante après nga dem déposer ba nga xam ni finalement da ngay sax fay nit mu lijjantil la lépp pour nga mën a am sa kayit mu complet ñun daw ñëpp loolu lañ bëgg a def liggéey lañ bëgg a nekk si biir dëkk bi liggéey bañ a génn dëkk bi investir si biir dëkk bi. pour suñ kayit mën a mat normalement état bi li mu ci war a jàppe jàpp ko parce que bu ko jàppoon ni mu ko war a jàppe du ñu soxla fay nit da ngay dem fii déposer génn jël sa reçu ñu ñu nga dem déposer waat si lii déposer waat mais euh, vraiment li war lépp état bi taxawu ci. voilà ni ngeen ko gisee secteur informel moom moo grouper bépp liggéeykat bu yëngu ci wàllum koom te matalewul juróom benn ponk yi nga xamante ni moom la ñu waxtaanee ci élément bi jàll léegi donc nag bu ñu sukkandikoo ci banque centrale entreprise boo xamante ni amul ponk yooyu wala book ponk bi ci gën a essentiel muy état financier maanaam tenue de comptabilité déclarée et régulière muy mel ni nag Sénégal booy xool 97 pour cent maanaam téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñaar yi amuñu kayit yi wala boog matalewuñ ko phénomène boobu wala situation boobu li koy justifier bëri na ba tax na dem nañ seeti suñu expert du jour économiste nañ ko déglu. bu ñuy wax euh, secteur informel euh, la plupart des cas dañuy jàpp ni muy nit wala muy entreprise koo xamante ni mu ngi yëngatu ci wàllu économie te dëppwul ak li ñu tuddee la législation xam nga dëkk bu si nekk dafa am ay législation yu mu teg pour entreprise boo koy ibbi nii nga koy ibbee li ngay doxal ci boo nekkee entreprise même boo nekkee particulier di liggéey ci wàllu koom ci wàllu économie dañuy bëgg nga am looy jox état parce que dafa mel ni kër rek boo fa nekkee dëkk fa te moom moo ko foog nga am looy jox borom kër gi ci ndimbal pour mu mën a am gestion efficace yooyu nag la ñuy tuddee ay législation législation yi boo ci dëppoowul ci loolu rek dañ lay boole si li ñu tuddee lu informel boo gisee configuration de l'économie sénégalaise 97 pour cent des unités économiques unité économique nag boo ko déggee mooy entreprise yi yooyu yëpp ci informel la nekk xam nga Sénégal dafa am une économie assez particulière mooy économie de marché la économie boo xamante ni jënd ak jaay ñoo ko gën a sous économie yooyu nag day nekk économie yu vulnérable yoo xamante ni bëriwuñu doole beneen bi mooy euh, ñun euh, amuñu souveraineté sur le alimentaire amuñu souveraineté ci le plan monétaire su boobaa économie day vulnérable ba nga xamante ni bu ñu bëggee dëpp ci wàllu formalité day xaw a métti lool lool Euh, seen contribution par rapport au PIB national PIB nag boo ko déggee mooy alal ji nga xamante ni créé nañ ko ci benn réew durant une année loolu ñu tuddee le produit intérieur brut euh, informel de seen poids bu am am solo parce que 46 pour cent la ciy participer boo jëlee ci côté emploi bi dangay gis ni 90 pour cent lay représ lay lay représenté ci wàllu emploi mais danga nga ciy génne wàllu agriculture agriculture moom moo polariser 30 pour cent yi donc secteur informel les emplois formels dañuy représenté 60 pour cent. xam nga 60 pour cent ça dépasse largement même li nga xam mooy marge bi Sénégal bu ñu fàttee que ni population active bi mooy ñi nga xamante ni am nañu xam-xam am nañu doole pour dem liggéeyi eh, dañuy nekk ci 10 millions de Sénégalais 400000 eh, la état jël ak privé bi di leen fay salaire mu des 9 millions 600 boo xamante ni ils sont dans l'informel dañuy gis ni tur bi secteur informel c'est péjoratif. dañ leen marginaliser c'est-à-dire joxuñu ni gëdd bi ñu am am ñu ci dem ba ti wax ni ñoom du ñu fay impôt bokkuñu ci économie aloo que dañuy fay impôt dafa am ay type d' ñu am cest à am impôt direct ay impôt indirect secteur informel lu ñu jënd rek état am na ci wàll parce que état noonu lay liggéeyee lépp loo def activité bu mënti am rek état da ci am wàll donc est-ce que du ñu changer tur bi d' abord bañ kaa tuddee secteur informel mais ñu tuddee ko une économie parallèle économie parallèle mooy économie boo xamante yow la nga am lu formel naam dëgg la mais la nga amul si lu formel danga nga koy tuddee accompagnement ngay def su boobaa doo jëm si formalisation mais da leen di accompagner tey man su ma yoree sama entreprise nekk dans l' formel dinaa toll foo xamante ni ak bi may demande avec la commande dina toll foo xamante ni état dina ma soxla wala benn entreprise formelle dina ma soxla man maay gën a soxla dem formaliser sama bopp que ñëw ñu may jéem a former parce que suñu ma dugalee ci cadrage formalisation rek damay perdre ay marge de manœuvre te su boobaa mooy indi PME yi ngay gis ni yu bëree bëri dañuy judd rek avant deux ans ñu dee. boo gisee problème yi am yépp suñu économie parce que orientation ñoo baaxul euh, da nga gis état buy wax ak. 3 pour cent lay wax mooy le cadre formel te ñoo ils ne sont ils ne sont pas trop représentatifs beneen bi mooy suñu formalisation de l'économie suñu économie nu mu tuddee nu mu tuddee une structuration de l'économie c'est une économie tertialisée tertialisée mooy économie boo xamante ni services yi ñoo ko supporter te dëkk bu bëgg a développé wu foog nga def li ñu tuddee changement structurel de l'économie nañu fexe ba secteur privé national investir vers l'agriculture la pêche et loolu moo mën a polariser des emplois su ko boobaa le secteur secondaire moom day ñëw benn une industrialisation su boobaa dina am benn dynamisme bu am lu ñuy liggéey dina des réew mi muy benn muy ce qu'on appelle une croissance endogène pour les Sénégalais et par les Sénégalais beneen bi aussi mooy la consommation locale ñu def ko une réalité non pas un slogan su boobaa nag euh, di nga gis développement dina am l'économie formel bon sopp ma trop di wax économie formelle mais l'économie parallèle ou bien l'économie domestique dina gën a mën a joxe sa partition dans l'économie pauvreté maanaam doole gu bëriwul wala itam ñàkk jàng bu sori wala daw impo dina tax entreprise yi yëngatu ci wàllu koom-koom di daw formalisation moo ne formalisation boobu bu jaaree si yoon mën na leen permettre ñu accédé ci ay opportunités yu bëri li waral nag entreprise yi di daw formalisation dañoo jotewul ci information yu baax yi fi nguur gi teg ba tax na dem nañ seeti kenn ci agence yi nga xamante ne ñoo yor entreprise yu ndaw yi ak yi digg doome yi muy ADPME agence de développement et d'encadrement de la petite et moyenne entreprise seeti nañ kii di Idrissa Diabra moo ko jiite. Au Sénégal, euh, c'est l'agence nationale de, de statistique qui le dit, 97% des entreprises qui ont un lieu fixe sont informelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que 97% d'entre elles n'ont pas de comptabilité au sens du système de comptabilité africain. Pourquoi est-ce que c'est que euh, quand on parle d'informel, on de beaucoup de choses. Certains pensent que l'informel, c'est celui euh, qui n'a pas de lieu fixe. Certains pensent que l'informel, c'est celui qui n'a pas de, euh, de fiscalité. ou bien euh, euh, qui n'a pas de registre de commerce. Euh, effectivement, ça, c'est des manifestations de l'informel. Mais l'informel, la chose la plus importante, c'est celui dont on n'arrive pas à distinguer ce qui vient dans sa poche et ce qui est dans la poche de l'entreprise. Quand on ne sait pas distinguer la personne morale de la personne physique, alors on ne véritablement faire confiance la personne morale et on n'est pas en mesure de confier de lui confier des marchés. En Sénégal, dans la zone UMOA, a été l'un des tout premiers pays place des pour permettre aux entreprises de tenir leur comptabilité. Donc ce les, les centres de gestion agri. Malheureusement, on ne peut pas dire que ça a été un, un franc succès. C'est-à-dire le nombre d'entreprises suivies par les centres de gestion agréés sont extrêmement faibles, 150, 200 entreprises euh, au, au, au, Sénégal. Il y a des mesures qui sont mises en place comme euh, euh, la contribution euh, globale unique. C'est euh, une modalité qui permet aux entreprises qui sont à une certaine taille bah, de payer en une seule fois l'ensemble des taxes et des impôts euh, auxquels elles sont, elles sont soumises. La, la, mesure la plus importante euh, qui a été euh, implémentée dernièrement au Sénégal, c'est le statut de l'entreprenant. Euh, on a une loi communautaire sur euh, l'orientation et le développement des PME qui traduit un statut nouveau pour les entreprises qui ont moins de 60 millions de francs CFA, en gros, de chiffre d'affaires par an. Ce statut est important parce que il vise à favoriser le passage des entreprises de l'état informel à l'état formel. Euh, L'ADPME est impliquée dans le dispositif pour accompagner les entreprises informelles, leur permettre de tenir leur comptabilité notamment. Nous sommes en train de, de construire une sorte de, guichet unique pour les entrepreneurs, pour montrer qui implique la fiscalité, qui implique euh, la comptabilité, qui implique euh, la protection sociale. Euh, un coiffeur, euh, un artisan, euh, il souhaite pouvoir être protégé s'il est malade ou si sa famille est malade. Donc on voit que c'est une incitation particulière. Euh, quel que soit l'entrepreneur, il souhaite avoir un accès à du financement, de la microfinance, un, un, un, des banques. Quel que soit l'entrepreneur, il souhaite pouvoir accéder à des marchés publics, euh, être en capacité de, de vendre à des agences, à, des, à l'État euh, ou à avoir des services à lui rendre. Euh, quel que soit l'entrepreneur, il souhaite euh, être bénéficiaire, par exemple, du, du contenu local. On va parler du pétrole et du gaz et ça va faire partie des, des, des éléments. Donc, l'enjeu du guichet unique d'entreprenant, c'est d'articuler l'ensemble des incitations pour permettre à une entreprise d'être non seulement convaincue, mais d'avoir un avantage à se formaliser. Si vous demandez à un entrepreneur est-ce que vous voulez devenir un futur champion dans votre domaine, je pense que 10 entrepreneurs sur 10 demandent oui. Idrissa Diabira directeur général ADP ma ñu koy jaajëfal bu baax ci leeral yu am solo yi mu indi suñu ñëwaatee ci lu mu wax teg na mesures yi nga xamante ni état bi mettre na ko sur pied pour jàppale entrepreneurs yi ñu mën a formaliser wu ñett yi ci gën a am solo di système de gestion agréé muy ay euh, jumtukaay yoo xamante ni dañ koy teg pour permettre entreprise yu ñu faciliter création entreprise encadrement ba ñuy jotee ci li nga xamante ni mooy seen kayitu beneen bi am solo muy statut de l'entrepreneur maanaam léegi définir nañ kan mooy entrepreneur ak kan mooy entrepreneur beneen bu ci mujj nag mooy li nga xamante ni guichet unique muy benn forme formalisation pour yombalal impôt pour entreprise yu diggi doome yi ak yu ndaw yi muy montant bu oyof boo xamante ni dañ koy fay muy mel ni jumtukaay yi état bi teg pour faciliter formalisation PME yi bëri na ku ci bëgg na nga dem rapproché wu ak ñoom ñuy rappeler nag ni formalisation nekkul lu gaaw nekkul lu yomb c'est tout un processus entreprise bi wala entrepreneur bi mun na jóge si li nga xamante ni mooy absence totale de formalisation dem ci peu formalisé à formalisé donc c'est un processus à suivre ñu leen di invité ngeen adopté ko. egsi nañ nag suñu dernière partie émission jagleel ko suñu invité du jour suñu invité du jour nag moom. dafa jàll ci état bu formalisation yépp maanaam dafa jóge ci absence totale de formalisation à une entreprise totalement formalisée ba accéder ci marché international nous recevons Abdoulaye Sène mi nga xamante ni moom moo créer Café Touba Choukran Abdoulaye Sène mettre sur pied Café Touba Choukran moom la ñuy dalal pour suñu premier numéro Miroir Eco monsieur Sène ñu ngi lay nuyu waaleykum salaam Maymuna maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem téléspectateur TFM yu ñuy seetaan euh, au Sénégal dans le monde en fait euh, man maay Ablaye Sène euh, doon benn jeune entrepreneur bi yëngu ci agroalimentaire depuis 2006. Mhm. nekk fondateur Café Touba Choukran. Mhm. Café Touba Choukran unité de production et une chaîne de distribution de Café Touba la maanaam mën naa wax ne ñun ñooy premier chaine de distribution du café bu basé fii à Dakar. voilà ñu gis ni que mu nekkoon entreprise bu informelle amul woon ay kayit ñàkk formalisation est-ce que mën nga ñëw sa liggéey avant ngay formaliser wu nan nga daan liggéeyee. boo seetloo secteur bi ñu nekk ci secteur yi gën a jafe ci la nekk quoi Café Touba c'est tellement informel nga xamante ni 99 pour cent ñi ciy yëngu informel lañ nekk. mais c'était euh, vraiment très compliqué ndax dafa am ay limites yu bare bare bare boo nekkee informel amoo ay kayit am na yu bëri yoo xam ni mënoo koo lijjante pour nga am financement day xaw a jafe mënoo rapproché wu ci institution état yi c'est un peu compliqué nga xamante yoon ne yëfu bawol bawol lañ doon def rek jóge ko daanu fexe lijjante noo ci génne quand mais avec le temps ñu seet ba xam ne véritablement nous avons une vision vraiment très clair il faut ñu jéem a fexe jóge ci mën a contribuer économiquement mm-hmm. ci réew mi. lan moo créé déclique bi en tant que entreprise informelle nga jékki-jékki décider jaar ci formalisation. oui en fait euh, déclic bi mu ngi jógee ci kaw ñun euh, nous rêvons grand bëgg a créer quelque chose de vraiment d'important. Mm-hmm. bëgg a contribuer encore euh, ci économie dëkk bi de façon très considérable ñu xam ne. ci informel bi ñu nekk dina xaw a jafe lool pour ñu mën koo def du coup sunu borom dimbali ñu ñuy bokk ci ay formation yu bëri yoo xamante ni ñu ngi koy organiser ci la ñuy découvrir comme lu demee ni ADPME ci la ñuy découvrir que ne formalisation bi mën na laa ubbil ay bunt yu bare bare bare mm-hmm. euh, par la suite euh, ma ne pourquoi pas et puis euh, ñu jéem a fexe mm, gën a yaatal affaire yi formaliser jéem a teg lépp ci yoon Euh, sa processus formalisation est-ce que guddoon na ak fan nga tàmbale ak ban yoon nga aw pour képp ku fi bëgg jaar. waaw process bi nag euh, jafe na jafewul su ma nee jafe na. Euh, des fois information bi ñun entrepreneur parfois duñ ci jot quand même mm. mais euh, arrivé à un certain moment ci la ñu gis que ne avec euh, l'ADPME mën nañ la orienter ci lu bare bare bare mm. juste pour la pour rappel mm-hmm. autorisation Fra bi ñu doon soxla mu jafe ci ñun ma toog ci plus de six mois dans une semaine lañ ko réglé ma rappelé ni autorisation Fra moom ngay soxla pour mun jaay bitim réew exactement exactement mm-hmm. ñu orienté ñu ci lu dem ni APIX en plus de là tamit euh, j'avais besoin véritablement euh, d'un incubateur ou bien benn accélérateur boo xamante ne dinañu accompagner pour ñu mën a réussir affaire yi ndax euh, problème bi mooy que ne ñun véritablement dañoo bëggoon a créer quelque chose de d'intéressant quand même formalisé carrément li def. da nga doon jànkoonte ak ay jafe-jafe ci sa liggéey walla dafa am marché yoo bëggoon accéder walla dafa am problème boo xamante ni da nga ko doon am de façon récurrente moo la poussé à la formalisation parce que gis nañ nit yoo xamante ni walla entreprise yoo xam ne dañuy des dix ans voire quinze ans dans l'informel donc yow en tant que PME est-ce que c'était un besoin walla yow yaa bëggoon cadré wu rekk am say kayit. oui c' était un besoin vraiment très réel. comme li ma wax euh, ci njëlbeen yi euh, dañoo bëgg a créer lu am solo. léegi euh, ñun y' a pas mal d' yoo xam ni boo ñëwee fëgg seen porte état financier lañ lay laaj. te pour nga mën a am yooyu il fallait que nga formaliser li ngay def. loolu moo taxoon ñu ne véritablement foog ñu formaliser li ñuy def. teg lépp ci yoon nag nga xam mën naa ne. góorgóorlu nañ ba holding lañ mujj a créé boo xamante ni dafa am ay filiales Café Touba Choukran bokk ci euh, ci yi. Mm-hmm. donc à ce stade mun nañ ne yow entreprise formel nga wala da nga nekk en chemin vers la formalisation est-ce que six ponk yi nga xam ne moom la ñuy laaj mooy kayit yeeg état financier déclaration sociale yi maanaam ñuy liggéey ak ñu mën a am lii ay cotisation sociale bu ñu feebaree ñu faj leen ponk yooyu yëpp est-ce que am nga yëpp wala yaa ngi ci chemin bi vers ça. oui effectivement mën naa wax ne nous avons rempli toutes les conditions. Ah. conditions yëpp remplir nañ ko euh, actuellement nii nous sommes une vingtaine dans l'équipe. Mhm. ñëpp. am nañu ay contrat la majeure partie même ay CDI yi lañ yor te mën naa ne quatre-vingt pour cent ci ñoom ay jigéen lañ encore de plus nga xamante ni euh, dañ leen di cotiser la caisse de sécurité sociale IPRES IPM même am nañ ko pour ku mën a feebar mën a faju euh, nous avons aussi dépassé euh, de déposé nos états financiers récemment ci début année bi nii nga xamante ni mm. lépp luy impôt TVA genre yooyu yëpp dañ koy fay quand même. Vous Euh, donc formalisation nag ñu bëri ragal ko yow mi si jaar nekk ci di ci liggéey. Mhm. tey bi nga formalisé wul ak bi nga formalisé est-ce que mën nga ñëw si li changé si sa liggéey. oui en tout cas am na une différence vraiment très large c'est que mhm. formalisation nag dafa xaw a métti te raglu mhm. en général gars yu bëri boo waxee impôt bi moom la ñuy ragal ni te impôt ku nekk dafa war a fay impôt quand même véritablement nga xamante ni lool moom mooy doxal dëkk bi mais euh, mën naa comme lu demee ci ñun nga xam te ni pour cent ñiy yëngu ci suñu secteur mhm. informel lañ nekk day métti ci ñun nag quand pour ñu formaliser wu ndax TVA bi ma jox la benn exemple mhm. tasse de café TVA bi dañ ko war a retirer ci client bi mhm. mais tasse de café cinquante francs mënoo cee teg TVA neuf francs il fallait que ñun ñoo koy xel di absorber nga xamante ni dangay gis concurrence déloyale mm. suñu diggante ak suñuy concurrent mu doon lu métti ñu bëri nag genre yooyu la ñuy xaw di ragal mais damay conseiller jeune entrepreneur yi yoon wi foofu la dina métti mais loolu moo ñuy permettre ñu mën a am ay punt yu yu bëree bëri nga xam ni euh, y a pas mal de choses mën nañ koo def ak formalité lépp sax lu ñu bëgg a def autour de l'entreprise mm. euh, ci formalisation lañ ko mën a jaarale quoi moo lay mën a permettre mm. nga mën a am accès ci banque yi nga mën a am euh, accès aussi ci investisseurs yi yëpp quand même mm. ngay jaay produit boo xamante ni sans produit alimentaire exporté ko yombul surtout dëkk yi nga xamante ni dañuy normaliser bu baax a baax di laaj ay critères pour produit bu jëm si wàllum lekk mën fa dugg tey bi ngay formaliser wu aussi par rapport ak sa produit yan jumtukaay ñoo la accompagner ba nga mën a am produit bu nekk aux normes. waaw mën naa ne ADP ma vraiment mu ngi ñuy jàppale depuis 2018. mu ngi ñuy orienté ci lu bare bare bare autorisation Fra bi moom moo tax ñu am ko de façon vraiment très rapide te loolu moo ñuy gën a dimbale pour ñu mën a exporter suñuy produit góorgóorlu nañ tamit ba code barre yi fexe nañ ba GS1 lijjante nañ fa code barre pour nos différents produits nga xamante ni emballage bi yore nañ ko fépp ci àdduna suñu produit mën na faa dem te du am benn jafe-jafe donc ni ngeen ko gisee muy mel ni formalisation lu mën a nekk la loo xamante ni c'est utile et c'est profitable pour ki nga xamante ni dafay liggéey monsieur Sène ma lay bàyyi pour sa kàddu bu mujj tey booy wax ak sa jeune entrepreneur sa rakk yi wala sa naataangoo yi nga xamante ni ñu ngi liggéey bëgg yokk mais ñemewuñ ut ay kayit. oui euh, ñooñu li ma leen di conseiller mooy que ne jarul ragal yoon wi li may wax chaque jour ci jafe-jafe yi foofu la yoon wi nekk quand te euh, formalisation bi. moo ñuy mën a tax a màgg mooy mën a tax ay investisseurs yu yor seen xaalis mën a gëm li ñuy def. Hmm. ndax formalisation bi da lay jox crédibilité ci kanamu partenaire boo mën di am quoi euh, ma leen di xamal ne euh, formalisation boobu daal moom mooy yoon wi dinañu mën a permettre vraiment ba nit yi mën ñoo ñemee surtout ñi nga xamante ni ay bailleurs lañ mën a def lu am solo ci euh, suñuy business en tout cas dama leen di encourager ñu xam ne loolu moom mooy doxal dëkk bi quand merci voilà lii lañ leen indiloon ci seen euh, numéro bu njëkk euh, Miroir Eco émission économique bi leen TFM jagleel sujet bu njëkk nekkoon formalisation ñu koy rappelé formalisation c'est tout un processus mun ngeen ko commencer ci début bi di ut kayit yi ndànk-ndànk ba dem ci entreprise tout à fait formelle ñu leen di jox rendez-vous dans 15 jours ci beneen numéro sur la TFM Miroir du Sénégal.